kan moo ñëw. may leen jàmbaar le grand champion moo ñëw. jërëjëf may ñu ko fii rek. jërëjëf réew mi nañu àndoon. taalibe Seydi Aboubacar beeg. looy sox si moom bu Mansour yegsi na. taalibe Seydi Aboubacar beeg. oh ça c'est beau. mais dama naa la. ndeysaan li may wane lamb. dama seetlu ndeysaan c'est ça le Sénégal Gris Bordeaux yi naanu Balla Gaye doon koy dalal Balla waaye kii daf maa defal loo xam daf maa jomb man macha allah daf boole damaa boole si boppam mhm. ak njabootam dima dimbali lu lu lu ab géwél di am ci moom balaa ab géwél am man maa njëkk am. macha allah fu muy dem ni man na dugal ci kanam oto bi. Mm-hmm. loolu nag su la ko kilifa may ci boppam. Mm-hmm. da nga ko war a a mm-hmm. mii moo jubale ak moom. ak a baax. a jubale sëñ Mbàkke ans man neuf ans moom moo jël téléphone am woo sama mag ni ko nit amul lu mbokkam. ndeysaan sëñ Mbàkke tu bi su màggal Tuubaa la ko baax sëñ Mbàkke kii ku nit ku doomu aadama war a bàyyi xel la ku doomu aadama yi war a wormaal la sama mag neuf ans laa xuloon moom sëñ Mbàkke tax ma jubóog moom keroog bi may jubalee moom dana ma dana ko sax si sa si sa ni nga def tey dinaa ko wan rasulilah jox ko macha allah sëñ Mbàkke bi moo ko doon ñoo bokk mbiri gas ma ñoo li ngay dégg yëpp moo ko moom mm-hmm. sëñ Mbàkke lu baax la nekk ci kilifa yi ku sa am la yor di ñëw képp koy gàkk rek yaa gàkk waaye gàkkut wan na baayam rasulilaay wan ndeyam rasulilaay kon kii moom marqué na empreinte sëñ moo wax lan moo tax mag gi boo ko doon laaj ci nga gën a bëgg ci àdduna mm-hmm. du la wax kenn rakkam ji la ba tax na leen naan seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel moom it ku xar xolom bi mag ji nga ji fekk kon ba tax na seen diggante ñoom ñaar yàlla bu ci seytaane am yoon yóbbu na ko màkk jënd na oto jox fi réew loolu yombul mag ju koy defar rakkam moom it mu bëgg magam ji ba mu jeex taak kon yàlla na yàlla boole leen yàlla jubale leen yàlla bu seytaane am seen diggante yoon mu nekk jàmbaar nag xale la waaye am na jom xale la waaye am na personnalité xale la waaye du dem fu mu ko woyewul xam nga man damaa sama bët di yor di xool tey bu doxee woon naka su dul noonu danaa yëkkati sama téléphone woo ko wala fu ma ko fekk reyanteeg moom waaye li muy doon doon doon xale man damaa fekk fu ko Aziz fonkee man fekke naa lool yëkkati xaalis jox ko te Abdou Aziz mii ñu tuddee tey doom bi uh-huh. kooku du ko ne kenn ku mu jël def na nii sa bopp ci boppam rek am na lu ko waral kon macha allah boo ñëwee ci tudd Balla Gaye 2 bi di wax ci man lu baax di sama rak yow mii ma yaa baax sa mag jooju nag damaa bëgg sa diggante ak moom na ci nit ñi génn dëgg la yéen a bokk ndey yéen a bokk baay am foofu parce que da wax léegi ci diggante sa mag magam yaa leen diggóole doomu aadama yiy dox ci diggante mag yeeg rak di mel ni Balla Gaye Sa Thiès lu leen dégg na ko lan nga leen xam nga àdduna moom nit ñi lee naa leen bàyyi wunu weer ci benn fan tey Sa ak Balla Gaye bu fekkoon ni nit ñi ñu ko teg loolu moo am doo gis seen Sa sax waaye xam na ni magam moo xewle ñu bokk benn ndey bokk benn baay mu def li ko war tudd bi jot mu sol yéreem taal oto ñëw ñu tudd ba pare mu delluwaat ci ay yiteem loolu lu ko gën a rafet amul nit ñi ñi daan wax nag nan xool ci loolu ne Sa Thiès def na tey lu rafet. commencé wax wax ju baax. comme ñoo daan xool lu xaw a. ñagas. fu ñu ko yokk fépp fu ñu jaaroon wax. nan fa jaaraat wax ni Sa Thiès kat. bi Balla Gaye de xewlee. Mhm. sol na yéreem. ànd ak soxnaam. Mhm. ñëw ci bis bi. Mhm. def fi li ko war. pare delluwaat ci ay itteem. nan waxaat loolu. macha ndax loolu mooy li loolu mooy li wér. te nit ñi nan bàyyi di di dugg ci diggante mbokk yi. nan bàyyi loolu koo xamante ni ba nuy bokk seen ndey ak seen bàyyi fekke woo soo mënta wax lu rafet ak lu baax téyel sa làmmiñ barke alxuraanu karim kon Balla Gaye 2 maa ngi koy ñaanal yàlla sunu borom yàlla guddal fanam yàlla wéral ko Abdoul Aziz ñi mu tuddee doom bi uh-huh. yàlla na nekk njiglaayam ñëw indaale ay xéewal tey ku ne ñëw na fi mm-hmm. may ziyaar bu baax a baax sama waa ji muy Cheikh Ahmad taalibi Serigne Salim kooku mën na maa wax ba jeexal te tudduma ko ndax daa nekk nit ku baax nekk nit ku nit ku nit ku nit ku nit ku xam valeur doomu aadama nit ku xam cëru doomu aadama